bismillaahi wa huwa rahmaan wa huwa rahiimul qaadidil amaan alhamdulillaahi wa sallaa abadaa alaa llazii bihi lanal hudaa badaa wa zakkir bi waftax rabbi diyaa fathan mubiinan laa yuraa mislihaa wa bibni mas'uudin wa jaahi salaa xidhiyal balaa wa qurra ayni wa kalaam واجعل لساني شاكرا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا مولانا الشيخ أحمد بامبا المكي خديم المصطفى المكي وإلى أخوتنا العظيم العالم العلامة والبحر الفخامة باب المريدين والمريدات مام شيخ إبراهيم فالله بوك جلدي mbokki kuréel Xidmatul Xadim soppe sëriñ Modu Jonn mbokki Tuubaa ji Jonn seen mbokk taalibe soxna Nogay bu sëriñ Fall moo leen di tuubal bu baax di jéggalu ci kàddu yi nga xam ne ñu koy bëgg a yëkkati ndax du ay teggin sëriñ bi yëkkati ay kàddu ba noppi ñu waaye ñu koy tuubal mbokki taalibe yépp di am kontaan ak mbégte ci bis bii waaye di ñaan lépp loo xam ne jàng nañ ko ci alxuraan wala ci ay xasaay wala ci ay askar yool bi yàlla ko suñu borom jottale ci sëriñ Abdoulahi Jonn ak sëriñ Malick Thiaw ak mboolem dem fa fekk ak ba fa fekk mu mel ni nag dañ ñu jox micro bi ngir di wax wax suñu moroomi soxna yi waaye ñu ngi tuub bu baax di jéggalu ci kàddu yi mu mel ni wax bi nag dañ koy tënk rek ñaari ko buñ waxee al al xuququl waajiba bayna mutazawijayni muy àq yi nga xam dafa dox ci diggante ñaari way dencante yi waaye ñu koy tënk ci ñaari koye bu ci njëkk mooy attaatu fi xayri mansiya ak siyaanatu ardi zawjiha taatu fi xayri mansiya bu ko waxee mooy topp sa ndigal borom kër ci lu dul mooy yàlla waaye siyaanatu ardi zawjiha itam mooy ñoŋal sa deru borom kër te temps boobu Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di wax boo demee ci wasiyatu Penda Jóob mi ngi naan koon wala tarumi taatullahi bila taati zawjiki a xulam naan koon bul sàkkoo am ngërëmul yàlla wala topp yàlla lu dul danga koo jaaree ci sa borom kër waaye ban borom kër la wax ak taqyisil xulam borom kër bi nga xam ne dafa ragal yàlla borom bi subhanahu wa mu mel ni alquran day wax ni arrijaalu qawwaamuuna ala nisaa bimaa faddala llaahu ba'dahum alaa ba'din wa bimaa anfaquu min amwaalihim fassaalihaatu qaanitaatun haafizaatun lil ghaybi bimaa hafiza llaah alquran day wax ni góor ñi day ñoo ëpp doole jigéen ñi lépp loo mën di gis góor mooy jiitu jigéen waaye ci li nga xamante ni loolu la yàlla gën a leen ñeent ca waaye bu ko waxee itam loolu day tekki li mooy li mu wax ni wa bimaa anfaqtum min amwaalihim mooy góor kat bu yoree soxnaam ci biir këram àq la ci moom moom moo ko war a jox dépense doon dafa yor ay milliards góor gi yor ay junni waaye mu ni jigéen ñi wax ni nag dañoo seetloon lool tey sàmm seen bopp ci la leen seen borom sàmm doon nee na ñooñu tamit jigéen ñoo xamante ne ñu sàmm seen bopp la nee ko jigéen ñooñu ñoo jar a defal loolu waaye bu mel ni dafa am foo xam ne itam dafa laal jigéen ñi mu ni wallaahi taxaafuuna nushuzahunna fa'izuuhunna wa'muruuhunna fil madaaji'i wadribuuhunna fa in ata'nakm falaa ta'thaw 'alayhinna sabiilaa inna Allaaha kaana 'aliyyan kabiiraa mu ni soxna yi nga xam nag bu ñu nekkee ak seen borom kër yi dañuy merlantoo ak ñoom di leen digle ci lan ah, ah man ba sëfa naturel nee na na nga jënd loo xamante ni danga koy neexalee soxna si ay fan bu ko defee nga bàyyi guddi nga ni ko soxna si kat kat gis nga ni man bañaluma la dara lépp lu ma am maa ngi koy bokk ak yow damaa bëgg kat nga def nii ak ak nee na bu fekkente ni waa ko ba sonn mënoo ci moom dara fa ay suuhunna fil madaaji wax waxuhunna fil nee na bu ko defee te gàddaay lañ ci lal te mooy nga tëdd ci suuf bàyyi soxna si ci kaw boo ko defee itam ay fan nga gis li nga bëgg ci soxna si kat ba tey sottiwul mu waroo wax nag wàttari mu hunna nga doog leen a dóor waaye dóor yooyu ko suñu borom di wax waxul ko ni nga xam ni noonu la yenn góor yi seen soxna jàpp ni sëy bi wala jigéen ñi mbaam la te biir borom borom moo tax sax borom bi fa in ataakum falaa tattabi'u alayhinna sabiila bu fekkente ni waar ngeen leen ñu topp leen ci waar boogee nee na kon kat bu leen leen topp benn yoon waaye yonent bi sallallahu wa di ñu wax naan bokk na ci li nga xamante ni moo gën ci nit yàlla jox ko muy ku góor ki ginnaaw bi mu ragalee yàlla borom ba subhaanahu nee na mooy soxna su baax soo xam ne su ko xoolee rek day kontaan soxna su baax soo xam ne comme na ko sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul daan ñaan naan wa zawjatan saalihatan tuiinu ala tuqaa wal barri daan daan ñaan borom ba subhanahu wa taala naan ko nag ma may soxna su baax su ragal yàlla yoo xamante ni kat dana ma dimbali ci sama diine waaye tey bokk na ci yenn góor yi bu ñuy ut soxna lan xool ndax buy liggéey banque la ndax buy fayeeku la ndax bu am salaire la pour mën maa ci kër gi xoolul sax sax ko mën a jàppale ci diine yi te sëriñ bi baax xaaj mosul ki ko doon jàppale ci diine la xool waaye itam soxna yi tamit xoolatoon ci li nga xamante ni noonu lañu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegaloon ngir ñu tànn ci borom ndax yonent bi dafa waxoon ni tunkahu l-mar'atu li arba'in li maaliha wa li jamaaliha wa li hasabiha wa li diiniha fasfar bi zaati din taribat yadaaka yonent bi def def yow yow jigéen booy tànn borom kër na nga ko kat ci ñaar waaye yow bu góor booy tànn itam na nga ci ñeenti façon yi mooy ban na nga xool jikkoom xool diineem xool askanam xool taaram wala alalam waaye nee na kat ku ci gën na nga tànn borom diine boo ko defee di nga mu ne wa xuluquhu fa zawwijuuhu nee na boo leen gisee nit ko may soxna te xam ne jullit la te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy wax loolu day déggoo ak aaya bi si moom suñu borom wax naan wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi izni rabbihi wallazi xabusa laa yaxruju illaa nakidaa nee na suuf su naan soo fa jëmbatee gàncax bu baax nee na mbéy mi mu naan rek lay génne waaye boo demee ci sën nga jëmbat ko ah dina naan ko waaye loolu may ñett te yonent bi sallallahu daan daan moytuloo naan maa ngi leen di moytuloo gàncax bu sën ñu ni ko yonent bi ana lan mooy gàncax bu sën mu ni jigéen gi taar lool te jikko ja ñaaw jikko ja bon nee na kooku mooy gàncax bu sën waaye itam bokk nañ ci siyaara doxal muy def am ay jikko yoo xamante ni bokk ci sëy muy juróom benn yoo xamante ni góor ak jigéen ñoom ñëpp ko bokk bu ci njëkk ñett yi nga xam ne góor moo ko moom ak ñett yi nga xam ne moom la jigéen moom al alfatu kooku mooy ñett yi nga xam moom la jigéen moom mooy jigéen bi nga war a war a oyof sa kanam borom borom nooy ñëpp ba mel ne époos waaye tamit li ñuy wax alqanaatu muy doylu jigéen boo nekkee ak sa borom kër da ngaa war a doylu ndax kat nga mën a yem li nga xamante moom la ko suñu borom wërsëgal waaye li ñuy wax muy neex a localiser comme ba alquran di wax naan wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jaahiliyyati al-uulaa jigéen da ngay neex localiser neex mooy lan mooy saa su ne sa borom borom soxlaa rek day fekk yow pare mu mel ne Seydi Hadji Malick dafa dafa mosoon na laaj doomam ni ko waayow bu ma la yóbboo ba sëy nooy def mu ni ko xanaa bu ma digalee ma def buñ ma teree ma bàyyi mu ni ko toogal ba dangoo sëy comme dangay xaar ñu digal la nga doog a def te xaar ñu tere la nga doog a bàyyi waaye nit ñi nga xam ne itam góor gi moo ko war bu ci njëkk bokk na ci ànd ak xam muy góor la war war nañ ko waxee sànq beneen bi des di ak sitra muy sutura góor da ngay suturaal sa soxna ndax daf bari naan sama ji soxna si kat day def naka su dul noonu te amaana yow ñuy góor yaa ngay def lu raw raw la foofu xanaa kay tari jigéen mooy feeñ rek waaye góor bu feeñ rek beneen bi mu des muy al rahmatu muy yërmande ndax boo demee suñu borom mi ngi wax ci alxuraan naan wa min ayaatihi an xalaqa lakum min azwaajikum min anfusikum azwaajan wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma kon rahma boobu góor da ko war a war a soxnaam mu am benn boo xam ne nag góor gi ak jigéen gi ñoom ñëpp ko war a bokk muy li ñuy wax al mawaddatu muy sa borom kër waaye góor it da ngay sa sa soxna bu soloo sax nga ne ko dafa ah waaye sa soxna sol ba pare bokk la nga mel ni yow ay ay fan la lay xëy waaye jigéen bi tamit bokk sa soxna sa borom kër rek nga fexe ba sëñ bi gis ko nga doo doowan kenn waaye ñun kay dañuy jënd suñuy jësneer jënd suñuy VIP amaana balaa suñu borom di ko gis day fekk rek mu nekk di si yoo xam yu ñu war a mën a yéen yéen ci mu mel ni nag dafa am ay ay juróom-ñaari sëñ na yoo xamante ni kenn ku ci nekk da am juróom-ñaari doom boo gisee ñu tënk waxtaan nag waxtu wi moo ñu xaj li suñu ginnaaw dafa bëri mu ni juróom-ñaari soxnaa ngi nii kenn ku ci nekk di nga am juróom-ñaari boobu kon képp kuy jigéen da nga déglu xool ci juróom-ñaari soxna yow ban nga ci nee na bi ci njëkk mooy zawjatul jamali jabaru giléem nee na jabaru giléem kooku ki muy jur mooy kat ak kawaam mooy ku xale jabaru giléem nee na foofu fekk rek ak kawaam lay jël lay jur waaye itam am na beneen zawja bu ñuy wax muy zawjatul xasiri mooy jabaru basan jabaru basaan bu ko waxee mooy jigéen boo xam ne xamul daal da ngeew day mel ni am basaan rek foo ko la bàyyi ko bu ay allah mooy ku dof ku dof rek lay jur waaye am na itam lu ñuy wax zawjatu sikkiini muy jabar paax jéeg boo xamante ni dangaa nekk ci kër de di di ruutale boo fekkee famille nekk benn nga fexe ba moom toujours ki muy jëlee mooy xaar rahim yi doon joo xamante ne day doy doog doog waaye seen dem sikkiit bi am na contraire am muy zawjatul imra jabaru puso dañuy wax ni jéegu puso da ngay nekk jéegu puso te a nekk jéegu yam sat lan mooy jéegu kër goo dugg fekk mu jaxasoo nga defar par baax say wax nee na kooku day doon lu muy jur ëllëg mooy jur saaxibu baraka mooy borom barke ku ñuy simili baxana ak di ko suufli daal ak koo xamante ne wax yëpp dégg mu amaat ku ñuy wax sawjatul kalbi muy jabaru xaj xaj kooku ki muy jub toujours mooy alxalaasi nit ñu soxor ku ne xam na ne xaj dafa soxor waaye am na jikko bu baax la boo xam ne jigéen war na ko roy mooy ban ban te yow mi borom xaj boo àndee xaj dem ci àll bi bu gisee loo xamante ni loo soxla la nu mu mën a def dina ko jàpp te bu ko jàpp jàpp noonu na ko lekk waaye da koy andi ko ci yow mi borom nga jël la ci gën a baax moom mu jël la ci gën a bon kon nee na jigéen tamit loolu a a baax ci ñam woon na ko jox borom borom mu amaat lu ñuy wax saw daf la ximaar muy jabaru baax koo xam ni balaa moo def lu baax rek borom këram da kaa xas wala mu dóor wala mu saaga wala mu toroxal ko ci ay ginnaaw la muy soog a def lu baax nee na kooku doom bi muy jur mooy alkaskulu ku tayal koo xam ne fu mu nekk ci ay borom dañ koy yóbbaale mu amit beneen sew jaww ñuy wax sawjatul finaa muy jabaru ki nga xam nekk ci ëtt bi laal laal bi neex lool muy jaay jaay lool mel ni soxna nogay te bu wéetee ci néeg bala yàlla xam doy na nee na kooku ki muy jël mooy ay taala ak yaasus lay jur koo xamante ne tekkiwul dara waaye am tam tam li ñuy wax saw yëpp la ko jira soxna yu mel ni soxna Xadiimatul Xadiim jóge seen biir nekk waaye bu nekkee ci nit nga defal ne am ñambar lañ nee na bu ñu jur mooy suul aaxibatul xasana borom mujj bu rafet moo tax da defoon ci benn taal boo xamante ni day wax wax ku jigéen naka war a mën a waaye yow ñu góor it war a mën li nga xamante ni mooy borom kër mu ni bismillaahi may dagaan soxna su man ko du bagaan te man jëg way bismillaahi man dagaan qur'aanan mu kamaa jagaan ma waddatan bayna rajul wa mar'atin min al azal moom moo di buur bi ñëpp xam moom moo ñu moom kon nañ ko gëm te kenn du gis fi ñun kemam te loo fi gis moo ko amal moo bindu góor bindu jigéen moo bindu loo fi man di seen moo jël jëfee def ci jigéen def ko ci ma wax la ci koy jigéen ñi wëy di jar borom ba gonti di xëy ak di jar di may alal jigéen ñi baax day doon teey am kersa lool te bañ a géey wala sawar ci am liggéey tabe ba lu yoon bi jëlal maa ngi ko jub yow bu ko def boo leen dewet mooy ki ma sax yéemu te yu wal wal nga yéem ko kii moo mat a jël doy lu mu weer sax mu weer te neex deret ba ñaari mer silviise lool di muuri cër xel ma rafet mu lay xelal am jàmm lool te mën a mun xolam la yaatu la bañ mel ne kii kenn du ko bañ boo ko yoree da lay bañal déglu ma tey ma wax fa man yaa ko teeru ko bañ bañ du fen du jëw te manu gàggal jigéen gi nañ di yamata jël ku baat ba neex wax fa suuf te buy wuyoo di toog fa suuf kii ku ko am am la soo safaan kii dalee xeexal déglul ma wax la yow safaan te mooy jigéen ma ne ñaan ëppal rambax boole kañaan matul jabar ba lay la jël jigéen ñi du li woor mën ta defar parce que du foor baat bi di riir mel ni góor matul jabar ba lay la jël kuy dox itam waxtu suuf te lu mu togg man di ko foofu saa bu tëddee di wax foofu boo ko takkee ak kaw bakkan ku réew a réew xaw ma bon làmmiñ ñaaw bu mën a fen sàggante lay kii rek ka la wusee yow di ndawal jigéen ñaaw ka mën a jëw jikko ja ñaaw ka mën a sew mu mën a tooñ te gaaw a bew fu la wusee yow di ndawal ku gaaw a mel am doole te gaaw a doon nekk njool boo wóoluwul sa bopp bàyyi dem fu mu toog dugal ku xata xata mën te boo ko tuddee mu fay la bañ te ku ko laal mu dóor la dañ ku dox ba dee moo koy jël jigéen ñi jigéen ñi fóotu te am fitu xëy dara koñ jigéen ñi toog toog toog te lu mu wax wax ñu ni nga di ko gis boo mat ci am safaanam la xamal jigéen bu dee bu gaaw a wax te mënta wax wax bu neex bari di koy ñuul ak la weex kun ko sa lax lax mënta fóot ku mënta fóot yére yu weex te mënta togg ñam mu neex bari jikko yu ñuul ak weex kuñ ko salax lam kaw bakkan ku réew a réew te yéewul mu ñàkk jom jom doy luwul mu réew a réew te yow loo bëgg bëgg yi du ko jël yonent bi kat nee nañu woon jigéen bi taaru lool te bon gàncax la rek di sax ci naat na de waaye meññal yow bii jigéen kenn lu may ma wax la góor bu jaraw mu di julli bu am fit mën a la yow naa sa yow góor bu la yow dalay muñal te boo ko gisee mu lay bëgg la lool mën laa defal bu la mayee bu réyal bul xool alal ba jaay sa xol bul gaaw a gëm nit dana war seetal ku baax te bañ a war te bul teg sa bët ci alal saa alal taxee nga sëy des na la xeexal yaa tey lii nag saful jigéenu tey ndax li ñu gëm moo alal saa bu bëggee bu baax nigal gis askan baax nga jël fa sëy fa sëy bu baax doom dana ñëw yàllaay dogal ku rëy ta réew ku rëy ta réew kuy door di xas lu mën a yor yow bu ko xool sa bopp ku rëy dalee ku mën a yor day xëy bis rek dara xaal kuy màndi yow war ko ginnaaw kuy saaga ak wax lu ñaaw ñii ñëpp bul jël seen alal may te ma waaja bañ liggéey tàyyeel ba mel ni waaja bee fu mu toll naan aw ma liggéey fu mel ni kii bu la jël boo mënta mun ni yàgg yow kër moodu moodu bul mu ñal mu takk jigéenu karaata kaa mën a layoo ba mel ni avocat amul kersa ci kii gi ku dof ba dee moo koy jël ñu ngi jéggal bu baax ci wax ji nag mu mel nit am na benn marché boo xam waa kuréel bi ñoom ko sàppoo ci ñun ngir ñu war koo def lenn la te leeral li nga xamante mooy liggéeyu xidmatul xadim ci biir réew mi ak bitim réew waaye itam di ci rendre hommage ki nga xamante ni mooy Serigne Abdoulaye Dione di wéy jur gi ak ku mel ni Serigne Malick Thiaw bismillaahi maa ngi door tey santa laa muy di buur ànd ak rasulillahi woon fii xidmati xayri xadiimi bismillahi maa ngi ànd ak rasulillahi woon fii xidmati xayri xadiimi may tàmbali bind ay bay di fàttali lenn ci liggéey bu tàmbali ci kuréel xidmatul xadiimi ñetti fan fan weeru kori wa lañu ko sos ànd ak jawriñ ya mag ak ndaw a ak jigéen ya ñépp ci xidmatul xadimi jawriñ Seydina Aliou jàmbaar ja moom moo yore programme ba jëwriñ maam Thierno yóbbal ba leer na xidmatul xadimi Serigne Baye Faye moo di jëwriñ ja Serigne Murit moo di soppe ba waka saara bàcc ma a waxam jëwér wér bi mbax ak ku mel ni Serigne Mamour Tine ak Kassa may jëf lu wóor ànd ak Mouhamadul Bachir jonni ci xidmatul xadim du ma fàtte Serigne Abdou Maay Jóob ak Cheikhuna Madi waay borom na taal ba leer na waay ci mboolem xidmatul xadim ak mboolem dem jaalilaahi yay xidmatul wajhilaahi ànd ak soxna yu selleelilaahi ci liggéeyam Cheikhina al Xadim weer bu dee ba def fukki fan ak juróom ku mu mën a doon ak yéen li góor ak jigéen ñu def def ci xidmatul xadim kuréel bu dox dox social la ceet ngénte wala naqar la lu ci mën a doon ñu boole jox la ak yéen li Cheikhul Xadim ci biir réew yi ak bitim réew góor ak jigéen ba ci ndaw yéemu ñu mag xeebu ñu ndaw ci liggéeyam Cheikhul Xadim kuy jàng ku ne na ñëw kuy jàngale itam na nga gaaw asaati yëpp ñu ngi ñëw kuréel xidmatul xadim daara ji nekk tuuti xam-xam ba mel ni man te ñàkk ngëm mu defar la ba nga di kànkam di liggéeyal cheikhul xadim ñu ci ñaanal sëriñ Abdullahi jàmbaar ga sax tax muridullahi saarix ba dëggaloolu wacci laayi yàlla ko booleeg cheikhul xadim sëriñ Malick Thiaw ñëpp ko jooy ngir suñu jàmbaar ga dina waay bisu keroog ba tiis na waay ci kuréel xidmatul xadim Serigne Malick Thiaw ñu bokk jooy ngir suñu jàmbaar ba dem na waay bisum keroog ba tiis na waay ci kuréel Xidmatul Xadiim murit la woon jàmbaaroon saadix la woon te dëggaloon ku gëmoon la te fonkoon xasaayid Cheikhul Xadiim bés bii bu musaara ñëw ñuy ñaan yeneen di teer ko moo ko Abdallaahi te boole ko ak am fa fekk te tàbbal ko fii jànjante Seyxul Xadiim ma dellu sant xarit xarit Njaam mi ma dugal ko Xidmatul Xadim jonn yàlla la bu defali koon yooyu liggéeyale Seexul Xadim te jox jox Xidmatul Xadim ñëpp te jox ñu ay doom yu dañ te jox ñu ay doom yuy liggéeyal Seexul Xadim ñun ñëpp ñu bokk ndey bokk baay góor ak jigéen ñëpp di waay ñu def yoneen suñu ngëm di waay te sax ci Xidmatul Xadim ñuy ñaan pour yàlla yokk suñu kuréel gii te sàmm liggéey bi mu fulal ñu ko ci barkab Cheikhina al Xadim te yàggal fi sëriñ bi taxa jàmbaar gi sax ci diine tuqa bi jaayi man jaara bi tuqa bi jaayi Cheikhina al Xadim wa kazaaka Cheikh Ndefou Fall xalifatu kul Baay Faal ak mboolem xalifa général ci barkab Cheikhina al Xadim yàlla yàlla defal ko jàmm juboo ñu fekk ñu ci suñu kuréel gi tàbbal ñu fii jannati Seyxul Xadiim yàlla na salaatu ak salaam di sax ci sayyidil anaam fekk yàlla nga tànn jaam tàggat xolam mu gëm Xadiim ridan war wardan min Allahi Xadiim xayru min ad-dunya wa ma fiiha jamiin ñu ngi tuub bu baax kàttan di jéggaluwaat bu baax di wax ni rek da di loo xamante ni mënul ñàkk ndax ndigal moom bu la ko joxee boo mënee jëfal boo mënul jéemal waaye may sant bu baax ak gërëm mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk xidmatul xadim di ci jiital suñu jëwriñ jëwriñ bay fay macha allah di suñu borom yàggal ko ci bi di ñaan yàlla oyofal yan waaye suñu jàmbaar bi nga xam itam mooy Seydina ak mboolem ñi ko séqal liggéey bi yëpp waaye di sant di wax lawlaa mawlaa daa'ilan a'iisha muy safrata qalbi wa nuura qalbi wa samsa aynaaya wa fawzatu kabidi alaa wa huwa Cheikh Mouhamadul Mourtada Diouf di sama sëriñ bu baax maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax wax dëgg yàlla